salut chers internautes et amis fidèles euh, d'inforéwmi.com euh, Tay na dama kontaan parce que tey dama dem seti, ndanan ci bir ndaanaan yi <laughs> ndanan bu mag tey dama dugg biir Ramdan euh, seti ko xamante ne nii mën ni kenn du ko présenté waa Sénégal ndax xarañam ci li nga xamante ne nii mooy guitare kooku nag du kenn ku dul du def du nuyu ko bàyyi ko mu ko internet Música <laughs> assalamu alaykum sister jari euh mang lay fay wax deug yalla di contane si eh, si teway bi bu ko weesoo may nuyu senegal yeb euh waaw di di ñaanal ñëpp jamm dal, di ñaanal ñëpp jamm donc mi ngi nonu Seydou yaa ngi timit timit lu de te suñ la gisee ci kaw ndaw timit de. est-ce que do est-ce que do ñu doo tijji guitare bi ñu xol <laughs> waaw non non peut-être boo tijjee guitare bi timidité, bi dina de. non non non non c'est que du du du timidité mais xam nga xam nga euh, si kaw scène ak vraiment dans la vraie vie euh, vraiment c'est deux choses yo xam bokku ñu dara dara dara quoi comprendre nga sur scène peut-être euh, passion bi xam nga envie bi mën na la yóbbaale tu bouges tu xam nga nga yëngatu mais après peut-être nit ñi ñooy gis ni euh, da nga timide sax mais timide du ma de maa ngi mi ngi cool mi ngi cool yeah. <laughs> non non euh, li nga wax sax dafa am importance parce que li nga wax dañ koy seetlu ci ñu bari. Mhm. comme ça bu ñu nekkee kaw seen la ñuy gën a firi que boo leen gisee. boo leen gisee booy wax ak ñoom souvent dañuy sëgg te bu ñu nekkee ci kaw seen dañuy firi lan mooy waral loolu Seydou. waaw waaw non loolu moom soo koy xool c'est pratiquement musicien yëpp la pratiquement musicien yep non lañ mel c'est-à-dire euh, euh, sur scène benen benen environnement la benen benen énergie la pour xamné mom ngay dégager xam nga euh, bokkul ak nak vraiment dans la vraie vie bi nga xamni euh Seydou ou bien kenen benen musicien kenen kenen euh nit simple la quoi il vit vraiment comme un comme un humain quoi tu vois euh, donc lol, la différence bi moi peut-être sur scène tu as d'autres énergies tu as peut-être passion bi moo lay dominer xam nga euh, des fois nga yëngatu sur scène xam nga te fulewu xam nga nekk beneen nit quoi mais dans la vraie vie moom mun nga nekk nit simple bo xam peut-être yàlla xam na ni doo mun a jàkkaarloog nit ñi ni sa xool leen si bët xam nga donc euh, voilà ñaari kii yu bokkul la daal ñaari environnement yu bokkul la Euh, ku xam euh, Seydou mën nañ ne ci Wally lañ koy gën a gis mm-hmm. euh, ak ci nga xamante ne nii mooy Kane Diallo mm-hmm. on va parler d'abord de Kane Diallo ban relation nga am ak Kane Diallo waaw Kane Diallo Kane Diallo c'est un frère Kane Diallo sama sama sama sama frère la sama genn wàll parce que à chaque fois dama koy wax si day ñëwaat si samay wax may wax ni kan jallo lima dund ak mom yakaruma li dess ci sama dund bi dina ko dundat ak nit yeah so mom, man ak mom lu leneen la lu quoi lu for luñ moñu bolé xam nga du musique du dara xam nga mais ko xam euh partager ngeen lepp lepp mus ngeen ko partager sauf sous-vêtement xam nga mais dundu nañ plus de 6 ans ou sept ans ñoy bokk bu ñuy soit bu dem man dem wala dem donc euh, euh, ay na sol romb la suba sol ko la ko donc ko dundal lolu ak yu 2000 xam nga ñu jox la 2000 wala ñu jox la 5000 en fait y a galéré donc ah ça non la démé ñoo ñoo pas ba ba donc mom une affaire la quoi suñu yeah. Euh, relation ak Wally waaw Wally aussi idem hein. Wally. Euh, dañu dem ba weesu diggante euh, maanaam ki nga xam ni patron sa patron la ou sa boss la euh, ngeen liggéey weesu nañ foofu quoi c'est un frère parce que koo xam ni sañ nga am problème wax ko ko rek sañ nga am soxla wax ko que sa soit familial que ça soit xam nga lu mënti doon euh, sañ nga ko wax rek c'est parce que sa sa frère la quoi donc moom.

leneen la quoi leneen lu ñu boole xam nga yàlla dogal euh, énergie bokk quoi man ak moom énergie bokk di di di di di di di correspondre quoi di dalante muy positif xam nga donc noonu la demee moom aussi suñu diggante yeah. Eh, mais ñu ngi gis euh, yéen a ngi joué le 12 bi passé mm-hmm. euh, mais presse en ligne bi manqué woon na fa nan ngeen dundee loolu. waaw man nag xam nga j'étais euh, j'étais vraiment euh, scotché si côté euh, musique bi si côté euh, organisation scénique bi ak euh, wàllum répertoire beeg jouer bi j'étais plus concentré wax dëgg yàlla si si si si loolu que yu bari sax yu don yu yu yu am après la ko yek quoi

Euh, mais inshallah lol mom bu ma si gëné bu ma si gëné gëstu bu maîtriser ko dina si mëna wax quoi donc euh, comme je t'ai dit j'étais plus concentré si walum euh, musique beeg li jëmon ci show bi ba taxna na bàyyiwuma woon loolu yëpp xel wax dëgg yalla donc mais inshallah lol buñ ci gëné si gëstu rek dinañ ci mëna wax you know. ok Seydou est-ce que jouer vais Raam Daan yomb na.

d'accord d'accord d'accord ouais non je euh, yomb na yombul yomb na yombul parce que ay looy l'oi wara exécuter le quoi euh, mais yomb na si kaw bo bo ñëwee en tant que professionnel def li ngay def après dem sa yoon euh, yombul si côté wu euh, am na euh, ay euh, ay affaire yo xamné il faut il faut il faut un bon niveau dal pour pour mon ko un bon niveau en tant que musicien pour mon ko pour mon ko gérer quoi voilà. légui légui noonu yow nan nga koy gérer li ngay bëgg a wax non yow yow nan nga koy gérer ak ñoom. wa non xam nga à la base Ramdan école la. Ramdan wul tay c'est-à-dire Ramadane depuis suñu suñu papa Thione la xam nga mu am ñu mu àndaloon doon def liggéey bu rafet ba ñooñu mujj ci loxoy Wally donc Ramadane s'est entouré que de professionnels mais boo ñëwee dina ne lii defal fii lii defee ko nii fii oh non fii au lieu ngay def lii defal lii wala defal lii donc euh, beneen formation la quoi boo xam ne am nañu fa ñu yàlla may expérience foofu ba nga xam ne des fois quand boo def boo ko defee nii ñu ne la non est-ce que boo ko defee woon nii du gën a baax wala boo ko defee woon nii boo jaaroon fii wala boo jaaroon fii donc yooyu yëpp ay advice la yoo xam ne gars yi dañ la koy jox foofu quoi. Euh, mais yaa ko wax léegi Ramdan depuis Thione Seck la ba tey ji Wally mm. euh, ñu gis ni anniversaire yi passé yëpp macha allah. Mm. Euh, ki nga xamante ne mooy Papa Thione da daan teewe ci anniversaire yi mm. ren ñu gis ni yàlla dafa def li nga xamante ne ni moo gën mooy jëlee ko fi yóbbu ko ci feneen yàlla na ko yàlla xare ajana nan ngeen dundee loolu waaw waaw mais xam nga vide la loolu loolu vide bu la xam nga loolu moom que ñu wax ko que ñu bañ ko wax euh, vite bu graaw la woon quoi et que soo seetloo sax euh, euh, show bi ren amoon y avait y avait plein d'émotions parce que tu vois ça se sentait quoi ce vide là bi nga xam ni am nañ xam nañ ni am na ku ku fi nekkoon ku nekkoon ci ginnaaw xam nga doon joxe xalaatam doon joxe ay idéem doon joxe tout ça te nekkatu fi xam nga donc euh, loolu moom on l'a on l'a bien senti xam nga surtout bi ñuy def ay reprise euh, yenn morceau mi yi xam nga donc euh, ak yenn hommage yi ñu ko doon defal c'était émouvant quoi mm. mais vous avez assuré quand même macha allah hein. mais ki nga xamante ni nii mooy est-ce que répétition yi yomboon na ci moom yes bon moi je dis que xam nga xam nga gaynde du jur du jur et que Wally gaynde bobu dafa ne mom. comprendre c'est-à-dire euh, ni ñi nga xam ni ñeneen ñi gaawé craqué sax euh, peut-être certains musiciens ou peut-être staff ou quoi ni ñu gaawé craqué bu ñu bu seen xel demee ci yenn affaire yi mom des fois sax mooy calmer gars yi moi leen di andiwaat xam nga donc vraiment c'est c'est quelqu'un de très très courageux ku am courage la et puis gaynde la xam nga gérer quoi il a il a su assumer xam nga il a su prendre ses devants aussi gérer quoi, cool quoi. ok Seydou ñu bëggoon xam yow ban guitare ngay ngay jouer. waaw man guitare solo laay def guitare solo laay def. Euh, moom lay def euh, Ramadan waaw soliste la yow ak Cheikh Niang kan kan moo njëkk a ñëw Ramadan. Cheikh maa ko njëkk Ramadan euh, Cheikh mi ngi je pense que bi mu ñëwee yàggul peut ay deux ans trois ans lay mot quoi. mais mais moo tax ñu gën ràññee Cheikh Niang ak yow. yow yaa effacé wu wala yow yaa bëggul feeñ lu bari wala. waa xam nga nag. Euh, wala guitare yi ñoo bokkul. Euh, xam nga xam nga Cheikh. dafa ñëw am am lu mu ëndaale. lu mu jëlee si beneen dëkk. loo xam ne peut-être sélé sénégalais yi tàmmuñu ko woon dégg seen nopp. et je le dis très franchement dafa ñëw indaale couleur bu nice xam nga bu boo xam ne làkk la mais boo ko adapté si mbalax bi beneen affaire lay joxe quoi benen day day fusionner affaire yi quoi donc peut-être je pense que li mu bees si si nopp sénégalais yi la et tout ça mais je euh, je pense pas que question de Ragnel ou qui parce que amna amna am na morceau yoo xam man may intervenir am na morceau yo xamné ne moy intervenir tu vois donc loolu la rek quoi. question de couleur yéen a bokk guitare bi ngeen jouer waaw. yéen ñaan ñep solo ngeen di def. waaw solo lañuy def waaw. est-ce que est-ce que doo may tuuti. Hmm? dañ may tuuti si solo <laughs> mais. <laughs> nga barkeelu. ça c'est ça c'est typiquement wolof quoi c'est ça réew ñu koy woowee la xalam mhm. euh, ma si nuyu de passage suñu papa ci mbay mi xam ne bokk na si ñu gën a siiwal style bi quoi diagnostic trop nag quoi. ok macha allah euh, mais ben, yan relation nga am ak Cheikh Niang. Cheikh relation you, you, you, you nice lañu am ah. dañuy dañuy dañuy dañuy déggante téléphone dañuy gisante dañuy partager ay euh, instruments dañuy partager ay pédales donc euh, man man je suis je suis quelqu'un de très humain bo xamné ne. Euh, damay jàpp ni affaire yi ku ku si yàlla boole rek c'est parce que am nga fi place quoi. Mm. macha allah euh, mais euh, dañuy wax souvent que ni musicien Ramdani xale yu jigéen ñi dañ leen di topp yow tu es <laughs> nan nga koy dundee yow. man yàlla dimbali na ma si benn côté xam lu tax ni ma dimbalee mooy xaw ma sama sama caractère la. xaw ma dama tëju bon xaw ma dañu jàpp ni dama tëju ou quoi mais sant yàlla quoi sonaluñ ma noonu parce que la plupart sax li may dégg kii dafa soof laay dégg donc euh, ça va quoi comme comme dama soof ba ba. mais noonu nga koy dundee souvent ñi naan say dafa soof. nan ngay dundee loolu bon bon ñi koy wax euh, mooy ñi ma xamul rek quoi ñi nga xam ni. Euh, miinuñu ma quoi mais ñi ma miin dëgg yow xam nga ni soofu ma xam nga euh, je suis de nature très très cool mais du dama nekk nit boo xam ne accessible ma trop cest à gaaw ma dugal technique donc euh, peut-être nit boo melee noonu waaw boo xawee am réserve rek nit ñi peut-être mën nañ juger ni da nga soof wala da kii mais moom maa ngi cool waaw <laughs> maa ngi cool macha allah Euh, en tant que musicien parce que comme ni ma la ko waxe sank gis nañu guitariste yu bari tey jii bu ñu sañoon ak ki nga xamanteni ni nii euh, mooy Wally Seck est-ce que mës nga ci dund lo xamanteni comme lo xamanteni ni nii tey jii euh, soo sañoon doo ko comme affaire maraboutage wala affaire je sais pas daal est-ce que mës nga ci dund yooyu. maraboutage. <laughs> parce que voilà parce que nous sommes au Sénégal. té dañuy wax ni souvent da fay bëri surtout ci seen milieu bi yeen te ku ne xam na ni tay ji ku sañon da ngay dem guitaral wali sek waaw bon personnellement man wax dëgg yàlla musuma yëg sama yaram ni li li affaire de maraboutage wala li li li li dal na ma wala nangam sangam wax dëgg yàlla li ma gëm daal mooy euh, peut-être d'accord euh, yaa ngi dem si milieu bu bëri nit bëri coow bëri xam nga ku nekk fay nekk façon nit bu nekk fay nekk donc euh, pour li ma gëm daal mooy àndal ak sa njàpp rek nga dem ko loolu laa gëm xam nga waaw loolu laa gëm mais quant à euh, euh, marabouté wala affaire de mystique pour pour pour am place foofu wala pour ñëw fa non ça ah

wa parce que je sais rek le euh, programme de Ramadan mënoo ne mënoo pas mënoo ko de ko dem jël yeneen engagement yoo xam ne peut-être kañ lay ou quelque chose comme ça bon bu weesoo loolu nag je je je collabore avec beaucoup beaucoup beaucoup d'artistes j'ai j'ai j'ai participé aussi à pas mal d'albums ici. Mm-hmm. Sénégal je naa album Comme, kam Comme ban jox ñu ci deux rek. Euh, participé na ci album yu bari yo xam <laughs> xam nga fàtte sax ay ay ay ay ay Momo Jean. xam nga Momo j'ai j'ai j'ai beaucoup de ces de ces morceaux xam nga euh, ak yu artiste yu bari yo dañ may wo studio mu ñew def dem xam nga bari na quoi ay mënuma ko sax damay damay fàtte sax des fois damay toog si rajo bi sax dégg benn morceau. waaw mais kii li muy joué nuroo nañ nuroo nañ kii après laay fàttaliku ni ma joué woon morceau bi xam nga euh, donc euh, à part voilà à part loolu moom je je joue avec beaucoup d'artistes. Mhm. mais est-ce que est-ce que guitare yomb na. guitare ak tëgg sabar ak kii ban moo si gën a non benn yomb si <laughs> benn yomb si. parce que tëgg sabar dafa mel da ngay tëgg nii rek waaw non tëgg mais mais guitare guitare. tëgg tëgg sabar dafa metti dafa metti trop. Mhm. tëgg sabar dafa metti batterie dafa metti mais guitare aussi dafa metti donc euh, je disais percussion metti na de tëgg metti na batterie metti na mais aussi guitare dafa metti mhm. parce que imagine nga toog benn deux heures de temps ou trois heures de temps boo xam ne su muscle yi du taxaw quoi tout le temps sa ñaari loxo yi mi ngi mi ngi am si lu muy nekk quoi. donc musique daal dara yomb si xam nga lépp jaayante la rek lépp courage la lépp jom moo koy complété quoi xam nga. est-ce que mës nga gitaaral Sidi Diop. non euh, yàlla dogalagul nag ma ma mës ko jouer non non du du studio du live wax dëgg yàlla. mus euh, nañ ma woo benn yoon. Je ne sais pas ñaari cousin de Je jabar euh, ma nekkoon si préparatif dem jabar tout ça mm. xam nga léegi bon pas directement un grand musicien Moussa Ngom moo ma ne je kaay dama la le studio xam nga dama affaire bu may defal en ne ko Moussa dina compliqué de parce que instant bi man nekkuma sama cœur te sama ben cousin moo mooy takk jabar te nekku fi donc man maa fi nekk di ko taxawu quoi maa war a jëli soxna seek yooyu yëpp xam nga après par la suite lolo tax mujjul sorti quoi yaa. loolu dong la. waaw lolo kese mm, est-ce que du waa euh, 5 étoiles li ñu kiiwul ak Ram daan. non non non non même on est tous des musiciens. xam nga mm. ñun ñun ñun on s'entend bien quoi dañuy déggoo affaire bi du d'accord mën na am concurrence mais bu nice la quoi xam nga loolu laa loolu laa yaakaar yaa mm-hmm, macha allah mm-hmm. est-ce que est-ce que tey jii bu bu sii Sidy woowoon ni nga dem <laughs> pour reetaan tontu rek est-ce que tey jii Sidy Diop bu jëlaatoon na téléphone wala kooku la woowoon noonu ngay wax woowaat la ne la ñëwal dama bëgg nga am loo ma joué est-ce que di nga dem Seydou. waaw non euh, ça dépend xam man dama am conviction bu ma am si musique euh, Sidi il a un très bon guitariste bu fa nekk di def liggéey bu nice moi man gëmuma loolu peut-être nga am musicien bu bu mun a def li may def mun ko def peut-être euh, identique ni ma koy defee wala. def lu naay si affaire après pourquoi pas pourquoi pas moom woo ko mu def ko quoi. mais mais lan moo tax kon euh, non temps je sais pas xaw ma ndax amoon na euh, ki fa euh, mais je pense pas je pense pas Euh, mais aussi damay revenir ci soirée waale bi euh, dañu gis ni ñu bëri dugg ñu woon. Mm. am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi yowoon seen seen ticket nekkoon ci biti. mais le lendemain Wally dafa dem tëgg vogue defaat entrée 10 000 à partir de 10 000 est-ce que yaakaaroo woon ne dafa waroon tëgg ah tëgg boo xamante ñi nga xamante ne dugg ñu woon ñoo ñëw ñu dugg ci soirée boobu wala mu tëggaat beneen week-end ñoo ñu duggul woon dugg. waaw parce que y a des gens yoo xam ne ñu ngi naqarlu loolu. waa xam nga moom xam nga jàmm moom mënul motale lépp à cent pour cent quoi nañu waxante dëgg Wally amoon na yéene ñëpp dugg amoon na yéene ñëpp baal mais xam nga cent pour cent moom loolu dañ koy bàyyi yàlla quoi xam nga non sérieux cent pour cent maanaam. di def dara mu nekk cent pour cent loolu it yàlla moo ko moo ko moo ko moo ko moom moo ko moom moo moo am dayo boobu quoi comprendre nga mais ku xam waali xam ni su sañoon ñëppay ku jënd ticket di nga dugg si show bi xam nga enjoy comme ñëpp quoi xam nga parce que si on stage sax si seen bi mi ngi wax naan bàyyi leen xel bu leen yaakamti bàyyi leen xel ñu nekk si bitin la mm-hmm. donc peut moom li muy woy yëpp sax ñi xelam mi woon si ñi ñi nga xam ni dugguñu ou peut-être. kii quoi donc noonu la demee. waaw après peut-être compréhension la rek quoi. Mm-hmm. Mm. <laughs> ok Seydou euh, mm-hmm. xam naa loolu la ñuy euh, jeexalee. Euh, waxtaan bi neexoon na trop bëggoon naa ñu continuer ba ci kanam <laughs> mais xam naa war nga génn man aussi la même chose euh, mm. du ma def kon lu dul xam remercier la mm. baye nga remercier ñi nga xamanteni ni ñoo ngi la doon seetaan waaw waaw man maa ngi leen di sant déjà Ah, si euh, opportunité yi wax dëgg yàlla si ak sama sama jëmm ju ñàkk solo ji <laughs> euh, di di di di si ñëpp di di di baalu àq su fekkee wax naa fi lu ëpp xam nga euh, wax ni nit laa rek mën naa juum si sama communication su ma fi waxee lu ëpp ngeen baal ma ko xam ni nit kese laa xam nga et maa ngi ñaan si Sénégal jàmm ñaan vraiment musique sénégalaise yàlla na gën a avancé ba ñu koy dégg all around the world fu nekk si àdduna euh, yàlla defal ñëpp jàmm ah, defal ñëpp jàmm ku ne li nekk sa xol yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal. Euh, am na lu ma la fàttee laaj yow kan mooy sa idole si guitare. man nag dama xaw a bëri ay idole de dama xaw a bëri ay idole. ci koo xamante ni peut-être danga ko bëgg de trop xamante eh, ya, ni bëgg nga ko bëgg nga ko torop waktu man nag ki ma doon wax dëgg yàlla ki ma sentir ba nga xam dama ba di copier ya, ay ay mouvement sur scène sax c'était tap Mustafa gay. Moustapha Gaye eh, moo doon guitariste su Alioune en plus de ça après moo remplacé woon eh, Jimmy Mbaye si Youssou Ndour benn moment kooku laa jom dama ko doon fil ba mujj gi euh, ay bougement am on stage sax dama dama demoon ba copier ko yeah donc without loolu ay ñoom Père Lamine fay tamit euh, sama idole lañ si si si musique fi j'aime bien le jeu de Lamine fay ay Jeannot Mendy seen jeu ñoom ñëpp xam nga euh, ay sama idole lañ quoi bon fi nationale. Lamine Faye le frère d'Abib Faye. waaw macha allah un excellent excellent guitariste. Mhm, macha un excellent guitariste yeah. <laughs> ok merci coach sa. ouais mais ouais <laughs> waaw mais dañuy bëgg rek contane xam nga comme je dis euh, di ñaan Sénégal jam et que euh, musique bi avancer dal musique bi avancer musique bi avancé su ma musique bi avancé mooy pour man jot na musique sénégalaise bi bëtt frontière yi dem quoi parce que vraiment musique yëpp a ngi nekk di dem hein. sous région bi boo si duggee ñëpp seen musique ñi ngi koy exporter mm-hmm. nasaraan si di ko jël keneen ak di keneen di ko jël kon euh, li may wax nii pour jeune musicien yëpp la comme man. Euh, nañu réfléchir nañu xalaat nañu bàyyi xel nañu xool solution bu ñuy mën a apporter ci musique sénégalaise ba mu exportable daal que ça xamul xamul naka lay demee nag waaye na ku nekk xalaat sa bor xam nga ñu xool lan moo mën a jëmale musique bi. kanam est pour loolu xalaatoo ni war ngeen war a mën a moo xam nga li ma la wax ngeen doon benn ku mënul ngeen jàppale ko xam nga yow tey mën nga mën lii. Hmm? Eh, hmm. Cheikh Nia mën lële hmm. keneen mën lee est ce que jotul ngeen manko tamit don benn li Asosiasi, bëgg musisi mën kee bu dee mën na ko mais association association musiciens yi bëri na fii xam nga bëri na fi ay sama instrument ay ay xam nga bëri na fi quoi euh, après euh, peut être yi amal rek dinañ ko peut être mais lise du sax engagé mais est-ce que dégo non dégo c'est-à-dire engagé vous côté jeu bi wala tout ça quand je dis réfléchir à ce que ñu exporter musique bi c'est-à-dire moy solution bi ñu mën def pour que vraiment euh, la musique sénégalaise ñu ñu ñu koy ñu koy d'une manière Tout xamné ne bi da koy mën jël quoi da koy mën jënd suis ndax dégg nga fi may dama seetaan Père Souleymane télé mhm. voilà mu ne euh, mbalax bi changer pied yi fi rek dina ko et que wax ça m'a fait réfléchir quoi daf ma daf travailler bu euh, et que message à tous les jeunes musiciens nañu bàyyi xel parce que pratiquement mag yi seen wàllu wéy na xam nga donc ñun nouvelle génération bi ñoo fi nekk ñooy demaat ba ci kanam incha allah lépp lu fi war a baax ci musique sénégalaise ñun génération bi ñoo ko war a def so moo tax may lancer message ne nañ ci xalaat nañ ci réfléchir à ce que naka lañ koy def ba mu exportable vraiment. macha allah waaw <laughs> jërëjëf may content info réew mi. mais mais mais may <laughs> inforo bi yéen a fi ne. fidèle voilà loolu lañ leen indiloon ñoo ngi leen indiloon ki ngeen xamante ne nii mooy Seydou le guitariste de Wally Seck kenn ci guitariste Wally Seck yi ndaanaan la nag te xam naa lim leen indiloon peut-être neex na leen ñu leen di remercier di leen jox dig daje beneen yoon